wasalaatu wasalaamu ala afdalil mursalin sayyidina wa xabibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla subhanahu wa taala si xéewal gi nga xam ne defalate nañu ko muy ñu fekkee liñ doon ñaan di korite ndax ba ñuy um koor dañ doon wax yal nañ ko tàmbalee bismillahi rahmaani rahim yeggalee ko alhamdulilahi rabbil alamin yàlla nangul ñu yal nañu yàlla nangul ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla ñi nga xam ne yàlla dogaloon na ñu umandoo ak ñun te tey mu fekk leen si biir suuf yàlla leen yàlla yaram jéggal leen ñi nga xam ne dañu umandoo ak ñun te yàlla dogal ñu nekk si lalu hôpitaux yi yàlla leen yàlla saafara ñi nga xam ne dañu umandoo ak ñun tey fa tabarakallahu ma sha allah yàlla dogal caabi féete leen gannaaw mbaa ñu nekk si ay tolof tolof wala ay jafe-jafe yal na leen ko yàlla teggil waaye sant yàlla bu baax a baax si wér gi nga xam ne may nañu ko ñu mën a fekkee bésu korite bi fa tabarakallahu di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp di ñaan yàlla subhanahu wa taala ñu ko si jaamu si biir koor gi yàlla na ko yàlla nangu yàlla may ñu ñu fekkee ke at yu bëree bëree bëree bëree bëree bëri si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli di sëlmal si yonent boobu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ziyaar bu baax kilifa dina yi nekk si réew mi yëpp di leen ñaanal yàlla yàlla may leen gudd fan yàlla may leen wér yàlla bàyyi leen fi ñu dund lu yàgg lool lool lool mu ànd ak wér ndax ñoom seen dund bénéfice la si réew mi bénéfice la si askan la askan wi waaye itam bénéfice la si diine ji nga xam ne moom mooy diinu rasul alxanif di diinul islaam diine sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jiital si ziar bi Chérif Abdoulahi Thiawlaay mii nekk ak ñun yoof ñaanal ko yàlla Chérif Abdoulahi Thiawlaay ibnu saydna isa ruhullahi ibnu saydna imaamallahi almahdi almuntadar ñu ngi koy ziar Chérif Abdoulahi Thiaw di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér mu yàgg di tette njaboot gi yëpp fa tabarakallahu noonu lañ koy defee Touba Serigne ba Bachir di ko ñaanal yàlla yàlla mooy ko gudd fan ak wér noonu lañ koy defee Thiénaba Cheikh Ahmed Tidiane Seck noonu lañ koy defee Cheikh Al Bekaay ca Ndiassane noonu lañ koy defee Paal noonu lañ koy defee suñu kër maam Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu anhu ñaanal xalifa ba Serigne Mbaye Sy Mansour suñu papa jooju ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér noonu lañ koy defee Cheikh Ahmed Tidiane Niass fële ca Madina Baye eh, radiyallahu anhu nga xam ne moom fa tabarakallahu macha allah tamit bokk na si ñi nga xam ne dañu taaral lislaam ak Sénégal gi yëpp kilifa diine yëpp ku lim juum waaye bu ñu limee ñooñu rek fa tabarakallahu mën nañu yóbbaale jéew ñi si des ndax Cheikh Alhaaj Abdul Aziz Dabakh radiallahu taala anhu dafa waxoon ne at-turuqu kulluha mustanbatatun min alkitaabi wa sunna mu ne tariqa yëpp seen balluwaay seen cëslaay seen wéeruwaay fa ñuy naane ñoom ñëpp mooy alquran ak sunna sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndokkeel mbokk yëpp mu ndokkeel am di jàmm yi waaye itam di félicité la président directeur général Youssou Ndour ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér ndax ku ne gis na nii ñu changé woon programme bi fa tabarakallahu si biir weeru koor gi ngeen amoon si émission yoo xamante ni yu ama ama ama am solo la bokkoon na si lu mel ni wareef Ramadan am na Seyda moo daan toog fi ma toog ñu koy nuyu yaa Seyda incha allah semaine prochaine dina ñëw ànd ak ñun. dafa nekk si noppalu rek Seyda Fat Bintu ma ngi koy nuyu sama yaay jooju di ko ziar ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér ziar kaaw. ma toog fii oustaz Mor Thiam toog fii tey fa tabarakallahu toog naa wéet naa waaye weetuma fa tabarakallahu di ngeen xam léegi si kanam li tax ma ne weetuma waaye itam félicité ñi doon def seetu ramadan fa tabarakallahu ma sha allah félicité quartier général ndax nekk na loo xamante ni adduna bi yëpp yëpp yëpp yëpp ñoo ko rafetlu ndax ni nga xamante ni noonu lañ ko doon tërale si weeru koor gi te fa tabarakallahu ka nekk sa bopp ba di président directeur général Youssou Ndour nga jaar si Bouba nduur directeur des programme jaar si Ndiaga nduur directeur télévision bi jaar si Birane Ndour directeur euh, général groupe Futur Média ñëpp ñëpp waaye nag ku wal tudd dëkk euh, ku wal mburu tudd dëkk euh, ziar bu baax ñaanal ko yàlla suñu xarit Pape Cheikh jàlloo nga xam ne moo téye woon quartier général bi doon ko animé yàlla may ko gudd fan Pape Cheikh ñu ngi koy ziar yàlla may ko wér yàlla guddal fanam làq ko fu yàq yeggul ak njabootam gépp si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko wax ne nag jóge nañ si koor ba wari bàyyil tooñ pap bàyyil tooñ tooñ baaxul tooñ du gàllaaj ñu ngi koy ziar bu baax di ko wax mu bañ ñu fàtte si ñaan tey nag incha allah émission bi wax naa la sànq duma si wet kin siy àndal bokkoon na itam si ki nga xam ñi nga xam ne doon nañ def ay émission yu am solo si biir weeru koor gi fii si télévision Futur Média duma ko présenté ndax bu ngeen gisee jëmmam rek ñëpp xam nañ ko si àdduna bi ci ay waxtaanam yu am solo si ay yeeteem yu am solo waaye itam si ay jàngaleem yoo xamante ni ndaw yëpp war nañ si mën a gis seen bopp ndax jënnul alquran ak sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy l'international oustaz du Fall euh, nga xam ne ni ko bitim réew xamee sax Sénégal xamee ñu ko noonu waaye tey ak télévision yi ak réseaux sociaux yi ak internet bi tax na tey na ko bitim réew xamee Sénégal xamee nañ ko noonu di ko ziar di ziar waa Italie yëpp Pape Mamadou Seck maa ngi koy ziar sama doom baay boobu nekk foofu oustaz ziar nañu la am mbégte partage ak yow plateau bi macha allah fii si sa kër si télévision Futur Média yow tam ñu lay ñaanal yàlla yàlla yokk sa xam-xam yàlla yokk sa wér yàlla yokk sa taxawaay ndax diine ji moom la yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon rek moom moo si nekk mhm. tool la ñi dañuy bay jaar fii ñi bay jaar fii mais bu ñu góobee ñun ñëpp ñooy bokk fu ñuy indi te mooy kanamu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko li ñu mënoon si njaboot gi andil nañ la ko def nañ si lu ñu man mu ngi nii mooy la mu waxoon ne ballighu anni walaw aaya jottali leen ma dontale benn aaya la boo jottalee ma jottali sayda jottali oustaz Mor jottali oustaz Pape An jottali boroom xam-xam yëpp jottali yaakaar naa loolu mooy ngóob mi bu ñu góobee nag ëllëg dañ koy ñëw jébbal ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko sa njaboot ga nga ñu dénkoon te ñu mm-hmm. bokk si ñu ngi nii yaa waxoon ne al ulamaau warasatul anbiya mm-hmm. kon donali def nañ si suñu kéem kattan yàlla nañu ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nangul oustaz Modou tafadal alhamdulilahi rabbil alamin wasalatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi wa xulafaihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli nuxayikum jamian bi taxiyati lislam ala wahiya asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu aleykum salaam ginnaaw bi ñu santee yàlla suñu boroom julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëkkati nuyoo bu tedd nuyu ko mboolem kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp waaye jiital ci itam xalifatul amma Serigne Babacar Sy Mansour ñaanal ko yàlla moom itam yàlla ko yàlla yokk dëgëral waaye itam ñaanal Serigne Mountakha Mbacké Serigne Cheikh Tidiane Niass Serigne Cheikh Tidiane Seck mboolem xalifa yi ñoom ñëpp yàlla yokk leen dëgëral ñëw fii ci télévision Futurs Médias nuyu directeur bi tabarakallahu ak mbooleem ñu koy jàppale ñëpp waaye itam nuyu sunu soppee sunu xarit al oustaz Hassan Seck mi nga xam ni doomi daare yëpp nangu nañu xam-xamam waaye itam nangu nañu yaram ci jàngalin bu rafet bi nga xam ne mi ngi koy jàngale ci diine ji waaye itam la xam-xam bay bari yëpp yar bi mu àndal teggin bi mu àndal nga xam ni ku ko naw ci loolu nga ko nawe ñu ngi koy ñaanal moom itam di am mbégte bokk ak moom plateau bi fas yéene waxtaane lenn ci ay tomb yoo xamante ni bi yaakaar naa dana amal solo mbooleem téléspectateur buy seetaan al oustaz ñu delloo la kàddu gi jazakallahu alfa xeyrin ya al oustaz al mufaddal al mubajjal eh, axuna eh, al oustaz Modou bi hadihi al kalimat al wajiza al mufida an nafia ayadaka allahu wa nasarak wa wafaq yal na yàlla guddal sa fan yàlla wéral cër yi ndax lii moo tax doomu daara yëpp war a mën a nekk benn ndax ku si nekk rek li yàlla dogal suñu borom subhanahu wa taala mooy que ne yow boo ëllëgee fii ngay jaar fii ngay jaar fii ngay jaar fii ngay jaar mm-hmm. te ñun ñëpp fa tabarakallahu ma sha allah ñoo bokk li nga xamante ne moom lañuy ñuy def kon lépp dañ la koy delloo rek ñaanal la yàlla gën a wéral cër yi incha allah euh, ziar bu baax imam Mouhamed Ndoy di imam ratib yoof fa tabarakallahu macha allah nga xam ne moom itam mm-hmm. si julli it gi yëkkati la mm-hmm. jëmale ko si mbooloo mi fa tabarakallahu macha allah ziar xale yi nga xam ne ñoo doon defar jullukaay ba ziar ñëpp ñoo xamante ni jàpp nañ ci xale yi jàppale leen ndax bërëb bu ñuy jaamoo yàlla yaakaar naa def fa li nga xamante ni ci yoonu yàlla la mhm. di nekk lu am solo la rawatina li nga xamante ni daf koy setal ba nit ñi bu ñëwee mën a julli bu baax a baax dinañ si ñëw bu ñuy tëj émission bi incha allah oustaz Modou ñu ngi génne ci chahru ramadan mhm. al mubarak xam ne weer la woo xam ne suñu borom subhanahu wa taala li mu waxoon ne moom la namm si ñun mhm. mooy at taqwa boo jëlee aaya ba mu jeex la mu koy tëjee mooy laallakum tattaqun dama bëgg ngeen jëli si ragal yàlla ragal yàlla nag ay jikko ragal yàlla comportement la oustaz Modou ragal yàlla itam melo la léegi génn nañ ci koor gi naka la ñu war a mën a wéyee insha allahu taala ba fekkewaat kooru de kooru déwén ndax dañuy dellu nañ meloon avant koor wala niñ doon jikkoo ci koor si lu rafetal si sellal si jubal noonu lañu ñu war a continuer mhm. wala ban doxalin nañ war a doxe nga xamante ni si la ñuy duggee si shahru shawal bi ñu nekk jëm ak moom kóoru déwén incha allah yaa oustaz jërëjëf euh, oustaz Assane ci laaj bu am solo bi nga laaj yaa ko wax léegi la laallakum tattaxuun mhm. amaana bu koor gi jàllee mhm. ngeen jële ci ragal yàlla kon yàlla teel naa cité ni moom jaamu yàlla ak njub du période ñu bari nag ci nit ñi dañu jàppee weeru koor période jaamu yàlla bu koor gi jàllee ñu dellu ca lañ nekkoon hmm. léeg la nga dégg ni dañuy pause pause mooy dañoo arrêté hmm. kon bu jàllee da ngay pleewaat continuer ca la nga nekkoon continuer ca la nga nekkoon yàlla ni déedéet chihru hmm. ramadan alladi unzila fiihi alquranu pour lan hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda wal furqaan yàlla daf ñoo teel a orienté loo boppam pour ñu jub mais ci at mi yëpp ci jamono bépp dañu war di jaamu yàlla te bañ a jël jaamu yàlla gi def ko ci période yàlla daf ni woon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa'bud rabbaka xatta yatiyakal yaqin yatiyakal yaqin mhm. bi ma la toggee jëf ba keroog sa ruugi di denc ci yow del jaamu yàlla mhm. asan lan moo tax Oustaz Assane lan moo tax ñu ni la même boo feebaroon tëdd ci lalu hôpital ñu samp la biteel nga tëdd jaaxaan del julli. tànk yaa ngi sa xel te say cër mënul dara. say cër mënul dara ñu samp la biteel nga tëdd ci lalu hôpital bi fu ne fiil jaar fa ñu ne la bul fàtte baar bi nga ni nan lay jullee maa ngi tëdd ci lalu hôpital bi ñu ne la jullil ci sa xel. tàllalal say cër xalaat ni man li xam naa kàbbar naa rukkoo naa jàng naa saar taaya naa sëlmal naa. pour bañ a faat waxtu waaw ki la jéggalul ci lalu hôpital ngay faat waxtu boo àndeek sa kàttan dana la ko baal léegi yow nga bëgg a jël jaamu yàlla nag wutal ko période koor gi bu jotee ci la ñuy muuru ci la ñuy jàng alquran ci ngay dégg tafsir yi ñun nitu daara yi koor lan ñu jox mooy seen traite ba pare nag nga dégg lee léeg ñu naan mooy seen traite ci ngeen di am xaalis asan ñun période yëpp suñu traite la wallaay ñun fu ñu jëm yonent baa ngi sallallahu alayhi wa sallam namuñu dara wallaahi wal quraan namuñu dara ñun am ñoom la koor gi nekk seen tereet ñoom dëgg la ndax ñoo ciy jëriñu ñun fu ñu dem ñi ngeeg alquran mu nekk ci suñu dënn dëgg la ñi ngeeg xam-xam mu nekk ci suñu dënn kon amuñu période dëgg la ñun période yëpp suñu période la dëgg la ndax ku am sa doom mhm. boo bëggee ku la ko tuddal da ngaa seeti Oustaz Assane dëgg mooy ñëw tudd ko mhm. bu sa biir di métti wala sa bopp di métti nga dem hôpital jaaxle ca Oustaz Assane ngay dem ni ko moccal ma. dëgg la bis boo amee ku wàcc liggéey koy seeti Oustaz Assane. dëgg la. moom ngay seeti mu ñëw jullee ko. dëgg la kon kay xanaa xanaa Oustaz Assane moom période yëpp période tam la. wallaay douze mois sur douze mois yëpp sa période kon nanu bëgg nanu bañ a jël jaamu yàlla gi. Hmm. yemale ko ci weer wi. asan yàlla daf ñoo sant jaamu yàlla wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun binduma nit ak jinne man yàlla wàcce leen ci àdduna lu dul ñu jaamu ma jaamu gi amul période maa uridu minhum min rizqin wa maa uridu minhum an yut'imuun soxlaw ma ngeen di liggéey di ma jox soxlaw ma ngeen di togg di ma jox li ma soxla man yàlla mooy ngeen jaamu ma jaamu gi du période nañu bañ a jël koor gi def ko période jaamu yàlla te xam ni li ñu yàlla tere ci koor gi moom la ñu tere or koor gi. oustaz euh, dugg nga fu am solo xam nga yaa ngi wax la sànq li yàlla doon wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Mhm. te teewul mooy li nga junj. Mhm. koo xam ne yàlla dana ko la nga def. Mhm. ak la nga defagul yépp baal naa la ko baal naa la ko inna fatahnaa laka fathan mubiinan liyaghfiraka llaahu maa taqaddama min dhanbika ko maa ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa te teewul daf daan jaamu yàlla waxtu wu ne. wa yaa ngi dégg ñu wax ni. E, ba ko soxnaam si laajee ni ko. Mhm. sa naafila yu metti yi nga nekkee ci guddi gi ñëpp yu nelaw ngay julli. te nga ne baal nañ la li nga defoon. ak la nga defoon te baal naa la nga njëkk def ak li nga mujjee def. loolu bu ma ko te danaa la ubbi ubbi goo xam ne musuma koo ubbi kenn dimbali la yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy jaamu yàlla guddi gi ba ay tànkam di neewi soxnaam laaj ko ni ko xanaa du yow wala keneen la yàlla wax du yow la yàlla ni jéggal na la yow yow la yàlla wax loolu ba pare yaa dàq jaamu yàlla ñépp lu mu ko wax afala akunu abdan shakuran xanaa man damaa war te nekk jaamu yàlla buy sant yàlla fu ma toll kon mu mel ni loolu la olof di wax ne teraanga teraanga koy fay teraanga teraanga koy fay oustaz jaamu yàlla gi teggeekuwul mbindeef yàllaa ñu ko sant Assane wax naa la ni benn buur a am te mooy yàlla. moo tax koo xamul noo koy def nam la dafa tax. koo xamul noo koy def nam la dafa ndax la ko yàlla defal. Mhm. bu tey bu doon man maa dégg loolu. mbaa yow mbaa keneen ku mel ni ñun. kon sipil jaanam rek lay jël. yu seddam wër ka. mais Assane ñun rek ñoo am sañ-sañu. Mhm. toog du ñu jaamu yàlla du ñu julli du ñu woor du ñu génnee azaka du ñu wax lu baax li ñu yàlla sant defuñu ci dara te jàpp nañ ni ëllëg prima classe première classe bii dugg na ñun lay doon first class lañ jëm loolu lañ jàpp ñun déet gis nga nag yàlla àjjanaam ji mayew ko inna allaha ashtara minal mu'minina amwaalahum wa anfusahum bi anna lahumul janna kay da koy jaay yuqaatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fi tawrati wal injil wal qur'an kon kay lay am wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bihi wa dhalika huwa al-fawzul azim jeex na kon loolu mooy wane ne yàlla dana man damay jaayante ak yéen waaw ajjana ji hmm. dama koy jaayante ngeen di jihaad si sama yoon xam nga boo waxee ñu lay rey si yoonu yàlla ba ngay rey man waxuma ay fital ay jaasi déedéet mooy sa bakk bakkan bi lépp loo xamante ni bànneex da si dugg bu neexul borom bi nga faat bànneex boobu. Mm-hmm. ba doo def loo xamante ni neexul yàlla neexul sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga Serigne Touba radiyallahu anhu dañ ko ma dafa am ko ma sa ñëw ne ko mokkal naa alquran yëpp. Mm-hmm. ko mu ne ko mu ne ko tàmbali mu mu jàng so song baqara alif lam mim zalika alkitab laa rayba fiihi hudan mu ko tegal foofu sa baaraam. fa la jeexee mu ne ko minal jinnati wan naas mu nekk ko hudan googu. moom la yàlla namm si minal jinnati wan naas. baqara ba minal jinnati wan naas hudan dong la ci yàlla soxla. njub. allahu leneen new si njub googu ba mu wax laa rayba fiihi hudan minal jinnati wan naas. kon njub dong la yàlla bëgg. njub léegi njub googu nag. soo ko amul oustaz ragal yàlla doo ko mën a am. te ragal yàlla googu mooy li nga xamante ni mooy mbubu bi ñu war a sol. Mhm. sañsee ko. génn ak moom ci koor gi. Hmm. ànd ak moom ci korité gi ba kooru déwén gi incha allah. mais Assane am na ñoo xamante ni bii bi korité desee deux jours lañu commencé afficher seeni programme jëm fan. wan yàlla ni ko man guddi korité damay fecc damay fecc ji. nan incha allah musa. guddi korité gi damay fanaanee fecc ji ba bët set yàlla. nan incha allah musa. comme koor gi jeex na nag yàlla yàlla nag comme koor gi jeex na nag may ñu nag ñu delluwaat fa nu nekkoon. yàlla ni waaw yéen afa xasibtum annamaa xalaqnaakum abasan da ngeen a foog ne dama leen a bind pour fecc. wa naa ilaynaa laa turjaun mais Assane kuy affiché programme mu caaxaan zuuru korite mooy léegi nag jeex na. maanaam daal yàlla contrat CDD bi ma amoon ak yow. Mhm. CD CDD bi ma amoon ak yow. Mhm. contrat à durée à durée déterminée. Mhm. maanaam weer la woon. mën na nekk vingt neuf mën na nekk trente. comme daal weer wi moom jënd na. bañ ne contrat bi à durée déterminée woon pour koor gi rek la woon jeex na. Mhm. man maa ngay delluwaat sa la nga xamante moom laa nekkoon. mais Assane koor gi dañ koy ubbee caaxaan tëjee ko caaxaan. buñ nee suba la koor gi ngay dégg ñu ne am na ñoo xam ne nee nañ dañuy tëj saison bi parce que dañuy dugg ci weeru jaamu yàlla. kon koor championnat la. loo ko ubbee. koor kañ la nekk calcio. fa lañ ko yóbbu Assane. calcio lañ ko def léegi. calcio lañ ko def. maanaam ubbee ko caaxaan mooy damay tëj saison bi. boo koy ubbiwaat nag koor gi jeex na tey moom yàlla dégg naa sax ñu bari naan dañuy organiser ay gàmm ak ay mais yàlla daal comme 29 euh, jours ngi nii fawu ma bàyyi ma ma continuer. waaye léegi oustaz li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne shawal bi ñu mhm. si wóor juróom benni fan mel na ni yow woor nga at mi yëpp wala jamono yëpp kon léegi juróom benni fan yi nga xam ne mu ngi si biir shawal ñu war ko mën a woor mhm. léegi fuñ koy def loolu. Assane yow ku dul woor ku dul ku dul woor taxawaayu Arafa defe nga ne dana war a. <laughs> te arafa benn fan la. benn fan la ak li ci ne ci ngëneel mais am na ñoo xam ne duñ ko woor am na ñoo xam ne duñ matal koor gii leen yàlla sant. weeru koor bi. weeru koor gi am na ñu ko dul matal. subhanallah. ndax asan weeru koor day weeru woo xam ni weeru jaamu yàlla la. parce que naa muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni yàlla moo wax ni koor sama yëf la man yàlla maa koy fayal sama bopp as lii wa ana ajzi bihi loolu dafa leer. Mhm. mi ngi mel ni tey Youssou Ndour ni Oustaz Assane Seck salaire am kenn du ko ko jox du jaar ci benn secrétaire maa koy fayal sama bopp mais amee ah, loolu la yàlla wax ci koor gi. parce que te léegi loolu yàlla wax ni moom moo koy fayal boppam ñun léegi ñu ngi ci commencé dugal ay caaxaan Assane koor bu njëkk. Mhm. koor ga nga xamoon bu njëkk 1988. Mhm. ak kooru 2019 gi bokkut. am na différence de. 1988 daawoo dégg mukk Assane nit ni la damay woor di teg sama jabar. dëgg la daawoo ko dégg de. dëgg la mais léegi ci 2019 bi yaa ngi koy dégg nee naa sénégalais yi bu ñu deful attention danañu dem ba àgg ci koor gi léegi comme neex woor ba deux heures naan ndox pause añ bu buñ moytuwul fa lañ jëm. ndax loo gis asan ndànk-ndànk lay ñëw. gis nga yi ñuy daganal di ko indi ndànk-ndànk nit ñi di ko miin di ko topp ak naan oustaz asan xam-xamam daa metti oustaz euh, euh, diw moo gën a yombale diw laay déglu diw waxu ci lii mais fu réew mi jëm. est que kon amuñu problème si par exemple koo xamante ni tey la dugg si diine. wala mu ngi xalaat pour dugg si diine wala koo xam ne mu ngi woon sax si diine ji waaye bi mu commencé pratiquer yàggul bu ñëwee tey ñu ne ko oustaz Assane lii la wax suba ñu ne ko oustaz Modou Fall lii la wax oustaz Pape Anne lii la wax kooku est-ce que doo ko indil confusion si xel problème boobu moo posé wu ci Sénégal fi mu ni ba mar day taali parce que dangay indi àtte nit ni la eh oustaz Assane la ëpp xam te daganal na ko man oustaz Assane laay déglu. nga wax mu ne la waaw man oustaz Pape Hann waxu ci lii diw lii la wax mais léegi xam-xam bi wala sharia bi dañ koo détaché. waaw léegi man détaché bi mooy am na jus boo xam ne asana ko moom am boo xam ne oustaz Modou Fall am boo xam ne oustaz Pape Hann yow mii doog a dugg da ngay am problème kan moo nekk ci dëgg parce que oustaz bii mi ngi daganal oustaz bii di araamal. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak wax ne bàyyil naa leen ñaar yoo xam ne bu ngeen si moyee. bu mhm. ngeen sànku mukk te mooy alquran ak sama sunna li sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam taraktu fiikum amrayni mhm. ma in tamassaktum bihi lan tadillu abadan ban ak ban kitaaballahi wa sunnati ñaar yooyu la wax yonent bi dañuy asan maa ngi dem mais bu ngeen bañee problème sukkandiku leen ci ñaar yii ñu ne ko ban ak ban mu ne téere yàlla bi ak sama sunna man sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam léegi bu ñu xoolee yi nga xamante ni comme ni nga ko waxee mhm. amul fi woon daawuñu ko dégg daawuñu ko gis mhm. ñu koy mu fi am ñu koy dégg ñu koy gis mhm. mu mel ni kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu jéggal ma si kàddu gi dafa am lu mu fàtte woon a daganal wala dafa am lu mu fàtte woon a araamal te mu waxoon ne al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diinan asan xam nga lu waa Sénégal xamul hmm. mooy diine yàlla ji amul sant hmm. diine ji amul sant kenn moomu ko muy diine lislaam bi diine yàlla ji amul sant benn kër moomu ko. alquran la ak sunna. Seydina Muhammad alquran mënoo cee dolliwaat lu ñu jàngul Assane. déedéet. 114 saar yi mu doon. Hmm? mënoo fexe ba def ko 115. mënta nekk sunna Seydina Muhammad mënoo cee rax lu nu xamut. dëgg xam nga lu fi nekk hmm. topp sa bànneexu bakkan. yàlla nañu si yàlla musal. Assane bu njëkk koor dañu lay tere weer wi yépp nga ànd ak sa soxna. dëgg la. dem ba mu yàgg yàlla xam ne lii kat xaw naa difficile ci gars yi. mu ne leen léegi dinaa leen defal benn benn benn. faveur lañ koy wax faveur waaw. uxilla lakum laylata siyaami rafasu. ilaa nisaikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna alimallahu alimallahu annakum kuntum taxtaanuuna anfusakum fa taaba alaykum wa afa ankum léegi nag jeex na fal aana bashiruhunna wabtagu maa kataballahu lakum mm-hmm. wa kulu wasrabu xatta yatabayana lakum min alxayti al aswadi min alxayti yatabayana lakum alxaytu al abyadu min alxayti al aswadi min alfajri summa atimu siyaama ila leyli mm-hmm. loolu la yàlla wax mm-hmm. may naa leen bu ngeen dogee ba fi xëdd di jotee am ngeen droit ànd ak seen soxla mais Assane yàlla mi la defal jàpp ndal boobu nga bëgg a topp sa bakkan ba léegi naan damay woor digg bëccëg woo sama jabar di fóonanteeg moom looy fóonante. oustaz xam nga gis nga débat boobu. looy woor di fóonante Assane. <laughs> gis nga débat alquran ne fi. kurus ne fi déglu ji tafsir ne fi toog di wax fi ngay woo sa jabar di fóonante koor. xam nga looy fóonante. xam nga doguma la yàlla bu la dara dog. gis nga xiif xiif. Hmm. bi ñuy yendoo bëccëgu koor. Hmm. dafa am lu mu àndalut. Hmm. ku xiif di tal leneen. lu dul di xalaat sa soxna di ko jéem a euh, jegeek di ko jéem a laal ak di ko jéem a approché ndax xiif nga. Assane sëñ Babacar daan na wax. radiyallahu taala anhu bari na lu la sa diine nangul. Mhm. mais sa ngor du la ko nangul. te muy dëgg. Assane baa xam nga ne takk sa jabaru nijaay araamul. déedéet. sa nijaay fase nga takk. Mhm. araamul de. déedéet mais ngor nangu ko rafetul. dëgg mais Sénégal dañu toll période boo xam ne Assane bu ñu muytuwul Seydina Mouhamed mi ñuy mi ñuy mi ñuy mi ñuy mi ñuy mi euh, naka lañ koy waxee sa rakk sax fase nga takk araamu waaw kay mais xam nga xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu koy sàllalu léegi ba daraja bi ko yàlla jox ñun dañ koy commencé wàccee parce que exemple bu ñuy joxee rek ci yonent bi lañ koy joxe sallallahu alayhi yonent bi da daan fóonante yonent bi da daan def nangam te xoola Assane Seydil Hadj Malick bi muy bind ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alaaji Malick daa bind téere bu tudd xilaasu zahab fii sirati xayril arab mhm. wax ni réew mii di Sénégal bu kenn génn di jàngi xam pour jàng kan mooy yonent bi yam leen Sénégal ci dëkk bu ñuy wax Tiwaawoon boo ñëwee laajte Malick Fa Wade Wele loo bëgg xam ci Seydina Mouhamad alaaji Malick la sallallahu alayhi wa sallam téere boobu lépp lu dund yonent bi comportement wam ñaata peppi bejjaaw la la yonent bi amoon alaaji Malick indi na ko ci karaw geeg bopp beeg sikkim bi lépp Maodo bàyyiwu ko mhm. mais gis nga bi muy nettali bay nettali bi Seydunaa Muhammad dem na Taayif sallallahu alayhi wa sallam xam nga yonent bi dem na Taayif mhm. ñu boole kook ay xale ak ay dof mhm. ñu di ko sànni xeer ba gaañ ko mais Seydil Hadji Malick nee na damaa ormal yonent bi ba dóor yi ñu dóor yonent bi du man Maodo maa koy bind ci sama téere bi oustaz dogguma la xam nga l'islam bi ñu nekk amul tabu mhm. maanaam lépp la ñuy waxtaane mhm. lépp xam nga man li may faral di wax xam nga lan laa jàppee tabu mhm. mooy wax boo xamante ni amul yar amul teggin te ñun dañ war a jël yar ak xorma ak teggin jox ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam nga lu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ba jàngal ñu naka la ñuy nekkee ak suñu ay soxna si biir néeg yi mhm. mais lépp mu ngi ko defee si yar mhm. ak si teggin su ma ko sañee waxee noonu xam nga lu tax waqulu linnaasi xusnan mhm. gis nga wax day am teggin wax day am yar wax dañ koy woddu nit ñi dofuñu xam nga jàng nga axdar yi man jàng naa ko asma wi muqaddima risala leneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen xalil yeneen ak yeneen mais tey jii nii am na loo xamante nii façon wax boo xamante nii ñun ñëpp jàng nañ ko te jàngeewu ñu ko noonu te xam nañ liñ bëgg a wax waaw lan moo tax léegi ñu bëgg a ñëw rek bëgg a indi vulgarité si wax diine wala di fësal yenn yoo xamante ni yow waaraate boo xam ne yow mënoo toog sa soxna toog mbaa sa papa mbaa sa yaay mbaa sa doom ngeen di ko seetaanandoo loolu ban façon waaraate la. mais xam nga Assane moom laa la junj sànq. seen Hadj Malick bi muy nettali li ñu def yonent bi ca Taayif bu ko neexoon bind moom Maodo ni yonent bi dañ koo dóor dañoo damm tànkam wala dañ koo xaañ xeer mais El Hadj Malick nee na sama orma mayuma ma naan yonent bi dañ ko doon dóor. dama koy junj rek yow yaay jëli dama naan laaxaa mina shufaha maa laa afuhu bihi wasaaqa admaw wasaala damm lil xadami. maanaam daje naag mhm. ñoo xam ne seen xel yi matul. Mhm. waaye man Maodo moom du ma ko tudd. Mhm. du ma tudd ci sama gémmiñ ni dóor nañ yonent bi ñu ne ko lu tax mu ne parce que dama ormal yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam bi dañ ko doon sànni xeer. xam nga bind ko dara nekk ci. Mhm. mais El Hadj Malick nee na xorma bi ma jox yonent bi moo tax duma tudd ay dóor yu ñu ko doon dóor. sallallahu alayhi wa bi gis nga boroom si alquran. gis nga xorma boobu suñu borom moo ko njëkk a jox. ndax amul fenn foo xamante nii dangay dem si alquran fekk fa mu naa la dóor nañ yonent bi na rasatu uxud am na wala amul mm-hmm. ñun ñëpp jàng nañ nañ na mu fa demee mm-hmm. mais doo dem si alquran mukk fekk fa ñu naan la def nañ ko lii def nañ ko lii def nañ ko lii yàlla day junj rek mm-hmm. ndax al isharatu takfi lil aql diine dafa am façon wax boo xamante nii moom moom moom la yayool mais bu fekkente ne bëgg a buzz wala bëgg fës wala bëgg a maa xew tax ngay yëkkati ay kàddu yoo xam ne nga ne lislaam ngay waxtaane te ba lislaam bi ngay waxtaane kilifa mënul toog ak njabootam di ko seetaan di ko déglu loolu day nekk loo xam ne doy waar mooy bi ñu war a jox sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tey jii nii orma boobu dem na ba ñu bëgg ko ñàkke suñu kilifa diine yi nekk si réew mi xoolal te oustaz réseaux sociaux yi dangay seet benn ndaw boo xamante ni boo ko déggee la muy wax kilifa gam nekk feneen da ngay taf say nopp ndax tiit léegi loolu nga xamante ni ndaw ñu aussi ñu ngi koy xewal mhm. te wax naa ko si quartier général wax naa ko waree wareefu Ramadan il faut ñu waxtaan si parce que inna al fadla bi yadillah yutihi man yashaa mhm. wallahu dul fadlil azim mhm. yàlla la mu def Touba ak la mu def Tiwaawan ak Laayeen ak Njaasaan ak Medina Baay ak Cenaba ak Paal ak feneen ak feneen ba Sénégal yëpp wër yàlla li may faral di wax fa mu teg ay teraangam di ko séddale loxob sàcc mbaa ku iñaan mbaa ku fa bay jël fu jàmbur Euh, Oustaz Assane da ngaa laal point bu am solo boo xam ni képp kuy suivre internet bi rek yaakaar naa gis nga ni mu lëmbee jamono. Mhm. mooy tarixa yi ñu bëgg a jël def ko ay équipe Barça Real gi gars yi bëgg a def tarixa yi. wala Inter Milan. loolu lañ bëgg. Paris Marseille. parce que dañ naan tey match si bi la. Barça Real. internet boo dugg diggante murit ak tiijaan commentaire yi. sama sëriñ mën sa sëriñ sama sëriñ mënul sa sëriñ sama sëriñ ba mu demee dëkk sàngam wax na fa nàngam sama sëriñ bañ ko convoke nàngam sama sëriñ convoqué wuñ ko sama sëriñ nàngam mais Assane yàlla li mu ñu sant mooy nañ ko jàmm Seydil Hadji Malick li mu liggéey ci carnet jëfam lañ koy def Serigne Touba li mu liggéey ci carnet jëfam lañ koy def wala taziru waziratun wizra uxra allahu akbar yàlla nee na wa allaysa lil insaani illa ma saa maanaam yow loo def yow la concerné. Assane say julli duñ ma ko jox. kon kenn du versel kenn. kenn du versel kenn Assane. ku nekk yaay fexe lu liggéey luñ la versel. li Seydil Hadji Malick liggéey pour boppam la. maanaam bu ñu àndoon tukki tey. waa jóge Europe. nga fret. Mhm. man ma ñëw kon yow la nga fret mu ñëw duñ ma ko du ñëw sama kër. arne euh, Assane kaye bi yàlla bind jëfi doomu aadama ku ne da am sa bulletin bopp toog nag di lim jaar jaaru Assane mii. ak njàmbaaram ak jaamu yàllaam am na lu ko ëpp solo mooy fexe ba jéem koo roy xam nga mbir mi lan la woon Serigne Touba jàmbaaram ak pas-pasam ak volontéem ci jaamu yàlla nañ ko roy ci loolu Seydil Hadji Malick bëggam yonent bi ak jàngaleem ñu roy ko ci loolu roy gi moo ëpp solo maa bëgg yonent bi maa bëgg yonent bi diw sopp na bi diw sopp na bi te la nabi digle defoo ko dañ lay tuumaal mais soppoo na bi walaysa nafaun ala xubbin bila amalin Seydil Xaaji Malick nee na maa bëgg gu àndul ak topp man Maodo mënuma koo comprendre wa taabi an sunnatal muxtaari da ngay topp sunna Seydina Muhammad taxta ni mi boo ko defee rek mucc adduna ak alaxira adduna kon bañ a jël tariqa asan def ko jaasi muy xeexukaay mënta nekk mas naa dëgg Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz li yàlla may Assane Seydil Hadj Malick radiyallahu may ko Serigne Touba radiyallahu may ko Seydina Limaamu may ko Maam Bu Kunta ak mag ñi mel ni ñoom may na leen ko xam nga looy gëm maa nansax min ayatin aw nunsiyaha nati bi xayrin minha aw misliha macha allah xam nga dama mës a dégg Cheikh Alhaj Abdul Aziz Dabakh radiallahu anhu ñu siy profité di ziar bu baax njabootam jëpp di si jël ziar bi tokk si loxo suñu pap suñu sëriñ sëriñ Maodo si yaay Safiyatu si ñoom ñëpp njaboot gi yàlla na leen yàlla may gudd fan mm-hmm. ak euh, sëriñ Abdou Euh, ñu gën ko xam si njool Fouta Serigne Bay Abdou ak njaboot gi yëpp ñoom maam Alpha ñu kenn fa tabarakallahu ma sha allah euh, dama dégg Cheikh Hadj Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu bés muy wax ne benn penku moo am mm-hmm. benn alquran moo am mm-hmm. benn fatiha moo am mm-hmm. benn yàlla moo am benn yonent moo am muy seyduna muhammad sallallahu alayhi wasallam te ñun ñëpp moom la ñu bokk gëm tijaan buy julli fu muy jublu penku murit penku xaadir. penku laayeen lu ñuy jàng. fatiha ak saar. ak saar jeex na laayeen lu ñuy jàng. fatiha ak saar. xaadir lu ñuy jàng. même chose waaye léegi lan moo ñu wutale. te ni ñuy takkee murid bi noonu la ñuy takkee. waa léegi est-ce que murid buy jàpp bopp lay commencé wala loxo. lépp ñoo ko nuroo. tiijaan mais Assane xam nga ñu yàq affaire bi. génération bi mujjee ñëw. kon il faut ñu wax ak ñoom Assane ñi togg ceeb bi yàquñu ko ñi ko tegaat ci gaz bi ñoo ko xamloo ñi doon tàngal. mooy génération bu mujj bi. te mënuñu tàngal ceeb. te parce que problème bi mooy asan bàyyil xel ni Seydil Hadji Malick. ak Serigne Touba waxuma la tariixa mais dañoo bokk maam maam Maaram Mbàkke moo leen meññi. Mm-hmm. Assane sob ak dugg lu sa yoon nekkul mënta weesu fekk ñaar ñu bokk. maam benn koy gënale benn maam. nee naa yàlla li tax mu boole El Hadj Malick ak Serigne Touba ñu bokk maam moom moo ko xam. Mm-hmm. benn maam dañ koo bokk ñoom ñaar. Mm-hmm. te ñoom ñaar amu ci kenn ko bind digal say taalibe féewaloo. dëgg la Serigne Touba moo bind wax ni wa kullu wirdin yuridul murida li xadratillaahi walan yaxiida sawaun intama ila al jilaani aw intama li ahmad al tijaani aw li siwaahuma min al aqtaabi is kulluhum qataan ala sawaabi oustaz tegal foofu sa loxo euh, jingal baa ngi noonu ngay dégg tey xam nga dañu am tuuti retard mhm. nag enregistrement euh, boo xamante moom lañ fi doon def euh, fa tabarakallahu macha allah ñu bàyyi la rek nga tàggu téléspectateurs yi ba semaine prochaine incha allah du ñàkk ñu àndaat fi ndax lii rek point la. dëgg lii rek liñ doon wax liñ mujjee nii. bu su nekk rek mën na jël ay fan wala ay weer ñu koy waxtaanee. mais bii moom il faut ñu dàbbali ko. ngir ndaw ñi gën a yeewu. xam li ñu bokk xam li ñu bokk. Mhm. ne li ñu bokk moo ëpp fuuf. li ñu divisé ni ñu bokkee Sénégal noonu la ñuy ñaan yàlla ëllëg ñu ñëpp ñu bokk ko aljana ndax ñu ñëpp ay mbokk lañ te kenn bëggul dem aljana di laajte sa mbokk ñu la nekkul aljana mu ngi safara yàlla nañu si yàlla musal kon ñu laabal xol yi yéenante jàmm ku si nekk la mu yor. yàlla moo ko jox dégg naa Cheikh Cheikh Abdul Aziz Dabakh radiallahu anhu man fii laa ko def mhm. maam Dabakh sama xol laa ko def radiallahu anhu mu ne Serigne Touba radiallahu anhu la mu am yàlla moo fob si ay mayam teg ko si loxoom dëgg la Seydil Hadji Malick la mu am radiallahu anhu noonu keneen noonu keneen noonu keneen noonu kon loolu jàngale la boo xamante ni bu rëy a rëy rëy rëy kon Mame Dabakh borom 40 ans zéro faute yàlla na yàlla yokk leeram te taas ñu si barkeem oustaz Modou nga tàggoo. oustaz Assane am mbégte ci jotaay bii nu bokk. Mhm. ndax sa xam-xam ak sa yar waaye itam sa mbaax macha allah ñaan yàlla mu yokk laa dëgëral amin ñu bokk lépp eh, incha allah point bii nga indi woon nag di point bu am solo mhm. li may dénkaane rek mooy nanu bokk ndey mhm. bokk baay bàyyi yi ñu commencé dund mhm. mooy euh, affaire tariixa mhm. nanu xam ne ñoo bokk yàlla mhm. bokk sayduna muhammad bu nekk am nga foo jokk ndax ittaqullaha wabtagu ilayhim wasila wasila am na koo xam ne cheikh ahmadou bamba la yaakaar ni mu bëgg a àgg yoonam moo ko fa mën a àggale am koo xam ne taamu na yoonu Seydil Hadj Malick na ku ne jàmmal yoonu jàmbur te siibir yow sa yoon te maandu ci tariixa jàmbur mhm. bàyyi mag ñi ni xas mag ñi li ñu liggéey liggéey nañ ko démb tey soog a ñëw ah, ak turuqu kulluhum ila rahmaani mhm. muusilatun muslikatun yaa jaani mag ñi la ñuy bokk bokk nanu ko nanu rafetal juboo yaatal xol yi bokk ndey bokk baay Oustaz Assane ñu sant la jërëjëf Cheikh na yàlla yokk amiin amiin lu bokk lépp yal na yàlla gën a laabal xol yi amiin amiin asalaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu di wax la yàlla waxoon rek sa xadiisul qudsi man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb yàlla nee na képp koo xam ne da nga jël sama benn waliyu wax si moom naka su dul noonu yàlla nee na man déclaré naa la guerre te ko yàlla déclaré ger doo am jàmm àdduna doo ko am àllaaxira nañuy moytandiku li ñuy génne suñu ay làmmeñ di ko wax di ko teg si kaw waliyu yooyu ndax kulluhum awliyaa'um laahi ñoom ñëpp ay waliyu yàlla lañ ñoom yal nañu yàlla taas seen barke te yokk seen leer ziar baax soxna Jeyna ba ñu ngi depuis Mantes-la Jolie suñu soppe nga xam ne macha allah léegi rek ñu ngi jokkoo Jeyna ba ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di ziar waa Italie yëpp fa tabaarakallaahu ndax foofu mooy sa dëkk fa tabaarakallaahu di ziar waa Yoof ya fa nekk yëpp di ziar bu baax lébu yëpp diggante comme ni ñu koy waxee. Euh, fukki penc yi ak ñaar waaw ñoom Pape Momadou ñoom Momadou ñoom Caba ñoom ñëpp waa yoo fi nekk Italie. ak euh, depuis waa Mbaaw sama mbokk Mbaaw waa Sekkeen Mbaaw yëpp maa ngi leen nuyu lébu gi yëpp. alab lébu gi alab lébu gi waaw. fukki penc yi ak ñaar nuyu sama famille bopp waa Payen ndax fa laa bokk waa Kër Seck Salaatu famille du ñu lim mais incha allah beneen yoon dinañ ñëw si lim yëpp jël nuyoo lébu yi ak yoo fi yëpp jox ko suñu kilifa suñu sëriñ euh, ki nga xam ne mooy suñu lépp fa tabarakallahu imam Mouhamad Ndoy imam ratib bu yoof mu tasaaral ñu ko si lebu gi yëpp fa tabarakallahu ziar bu baax Aline Diagne mu nekkoon si caméra bi ziar bu baax waa régie Vieux Diouf Babacar Jamil Apoulaye <laughs> oustaz Abdou Karim Ba mu ngi nii taxaw léegi day ñëw ànd ak yéen si firi gént Pape Silla fàtte woon naa ko ajaratu mati carter Dieng ñu ngi koy nuyu bu baax di leen ziar ziar so Serigne Tahirou Sarr ak soxnaam merem si soxna merem yàlla na yàlla guddal seen fan may leen wér sàmm leen sàmm seen njaboot laax leen fa yàq yeggul mbokk yi mu ngi noonu ba aljuma ak jàmm incha allah wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jazakallahu xayran jërëjëf macha allah jërëjëf jazakumullahu xayran ولا نوم له ما في السماء أعوذ بالله